Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf fi Macky joxoñ Abdoulaye Daouda Diallo fa lay Sud Quotidien nañu njiital conseil économique social et yi di Abdoulaye Daouda Diallo la naroon mu di am dëndëm doon candidat ci présidentielle yu 2024 teg na ko ci suuf mi ko xam keroog samedi ci déclaration bu mu doon def journal bi di Sud Quotidien bind ci xëtam njëkk ne ADD tekki nay jàjjam Vox Populi nañu li tax mu doxale lu ni mel nee na nga xam ne seeni pexe du dara lu dul bëgg fi indi kaw Abdoulaye li mu def journal Walf Quotidien ak l'info gis moo di Abdoulaye Daouda Diallo wax na keroog ba sottal ci déclaration ba yoon bu mu tuddee turu Amadou moom tudd na ko ci Vox Populi jëral xët mu njëkk yéenekaay bi sant na ko gërëm ko ci décision bi mu jël ba xamal ko ne ko def nga lu rafet danañu àndandoo xeex ànd gañe ànd liggéey ngir wéyal yéeney président Macky Sall journal bi gis ne Abdoulaye Daouda Diallo dafa yeewi askan wi rawatina waa APR ak waa Benno Bokk Yaakaar ndax bi mu ne du doonati candidat daanaka ñëpp a noyuwaat Macky moo fa jaar li tax ba Abdoulaye Daouda Diallo teg lépp ci suuf ci moom la objectif bi nag mooy sàmm li fi Macky def boole ceeg mottali yéeneem ci Sénégal anki dina nañu waa Benno Bokk Yaakaar lijjanti nañu li leen naroon a yàqal ginnaaw bi Abdoulaye Daouda Diallo tegee ci suuf ab candidature moom président conseil économique social ak environnemental bi di Abdoulaye Daouda Diallo di ñuy wax ci xët mu njëkk anki dina ne ak division maanaam loxoom ci candidat bu bennoo bi journal L'Info nee nañu mooy Maguette Sène maire bu Malicounda ubbil yéenekaay bi responsable yu mouvance présidentielle yu commune bu Malicounda ñoo doon def démb ab assemblée générale ci njiital Maguette Sène yéenekaay bi nañu fa la ñu a birale ànd gi ñu ànd ci Amadou Ba mi Macky Sall tànn def ko candidat bu Benno Bokk Yaakaar jël nañu fayit engagement taxaw ci wetam jàppale ko xeexal ko ngir ngoonuk 25 moom Amadou Ba mu

Mahammed Boun Abdallah Dionne bés bi la jour nee nañu moom it demoon na seeti xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir te ci lu yàggul dara bés bi la jour mi ngi ñuy wax ne Mahammed Boun Abdallah Dionne dina annoncé candidature am beneen bu déclaré ci wote présidentielle yi ñu jëm di Ndonga Ndiaye mi ngi ci la Sénégal moom Ndiol Bawal di Ndonga Ndiaye borom mouvement partenariat pour la paix et la prospérité yéenekaay bi nee nañu na fay loxom jeunesse bi yi présidentielle yi 2024 yooyee Abdourahmane nee na pare na mi ngi ko waxee ci xët mu njëkku Rewmi Quotidien plan bi Ousmane Sonko nas ci wàllu parrainage suur soi mi ngi ñu koy noccil li moom Ousmane Sonko moo di ci ñaar fukki député ak juróom yee ñu am ci assemblée nationale fukk yaak ñett ya parrainé Bassirou Diomaye Faye Soleil national xëy na parrainé xët mu njëkk Ismaïla Madior Fall ministre de la justice bi moo fa xëy séq waxtaan wu yaatu ak journaliste magistrature mbiri Karim Wade Khalifa Sall mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr wax na it xalaatam ci kii di Amadou Ba ñu bàyyi ko fa dellu ci l'observateur xooli escroquerie au mariage ba xew ca Parcelles Assainies Suzanne Sanoxo ab célibataire la bu doon gere natt bu mag a mag am benn waay bu ñëw di ko bëgg gëm lu ko ne da koy takk fexe ba ndaw si teggi natt bi jël ko jox ko mu di xaalis bu tolloon ci 4 millions waa ji jël xaalis ba daw ak moom dem Dubaay toog